waaw léegi pour tàmbalee dafa am information yi nga xamante ni daf fi amoon fan yee muy mu ngi tàmbale ci benn booy boo xamante ni da doon jote fii ñu jam ko ci jam bi nag dégg nañ ci lu ne man dégg naa ay autorités yoo xamante ni ay haute personnalité yoo xamante ni dañoo ñëw taxaw nekk carrément réseau bi dañ faa rey nit or reyuñ ko booy bi barki démb mardi ci 15 heures 30 la ma yaayam woo ne ma moo ngi noonu di génn hôpital rejoindre na fa même en plus coow la goo xamante ni daf fi terminé mais démarré wu fi ñoom ay xale lañ ay adolescent lañ ndax ñu ngi am 17 ans ak 16 ans kenn ki léegi dañu jote woon feneen ñëw fekkante fii automatiquement boobu jam ko benn jam na ko ndaxte dafa fekkoon dimanche boobu ñun dañuy bale. ni réseau bi dafa am benn association boo xamante ni day contrôler di topp réseau bi de bout en bout tey bu ngeen gisee carte yi carte membre yi nit ñi takk. nga xam ne am na organisation bu fi taxaw bañ ko taxawalee ba léegi y' plus de huit cent membres yi nga xamante ne ñu ngi liggéey fii pour vous dire que ni y' a pas mal de personnes boo xam ne ñu ngi yëngu fii ci réseau bi ñu ngi yëngoo fii ci réseau bi. nit ñi nag da ngay dégg ñu naan Samba booy nangam ak nangam non loolu jóg na fi on di ñett am nañ ci nu taxawaay bu dëgër sukkandiku nañ fañ war a sukkandiku am nañ fulla am nañ fayda ba nga xamante ni lépp loo xam ne da doon ci réseau bi am nañ fu lay jëlee ko fi te jóg na fi. ñu bari nag ñu ngi wax ci réseau bi te leer na ma ni bañ fiy gëj ak léegi mën na fukki at waaye ku jaar ci réseau bi ci weer yi wala ju ñetti weer yi ñeenti weer yi di nga xam ni changement bu mag am na fi. effectivement préparé wu nañ bu baax a baax a baax ci mbiru màggal gi préparation bi weesu association bi ñu fi teg muy ay ndaw ay kilifa yoo xamante ni dañuy saytu mbiru réseau bi. encore j'en profite à l'occasion ma annoncé ñi nga xamante ni ay gan la ñuy doon ci màggal gi ndax ñun màggal gi sëñ bi rek lañ ci doon déglu. ba ndigal gi jubee jàpp nañ ni danañ màggal kon réseau bi toujours daraan accueillir ay gan yoo xamante ne ay jaaykatu téléphone lañ ak ñeneen ak ñeneen ba tey tamit accueil bi mu ngi fi waaye nag di autre manière la fi newoon liy olof naan la woon woon ni na moo fi am ku fi ñëw na nga indaale ay intention yu noble na nga considérer sa bopp comme un pèlerin bu dee da ñëw pour jaay na nga considérer sa bopp comme un commerçant xam ni loolu moo fi am. li ñu bëgg li ñu bëgg wax dëgg yàlla mooy ñu xam ni. ay jeunes ñoo fi daje ay jeunes yu responsable ay jeunes yu am jom ay soutien de famille ay samba boy ak ay sàcc euh, wax ju ñaaw ji ñuy teg ci réseau bi laa bëgg ñu xam ni bu doon amoon na fiit jóg na fi ay jeunes yu engagé yu déterminé ay jeunes courageur ñoo taxaw fii di liggéey. ñu ngi ñaan tamit ñëpp ñu ñu mën a épauler te war ñoo dimbali ñu bañ di dagg suñuy tànk épauler jeunesse bi xam ne jeunesse bu courageuse lañ jeunesse bu jàmbaar lañu. ainsi tamit bu leen fàtte réseau bi du ay góor rek. y a de femmes yi fiy yëngu di jaay ay pistigo ñii di jaay kafe ñii di jaay ndékki ñii di jaay añ mat nañ une centaine de personnes